ci famille bi bu kilifa gi bu Youssou passé am naa ay mag jigéen mais yàlla boo xam ne ñoom ñëpp maa leen njaboote muy ku ma doon sëy la waa kër ma ñeneen ak ñeneen donc avant may commencé parce que dëgg la yàlla bëgg euh, sans être prétentieux je pense que war nañ ma mën a seetal que ni fu ma dëgg fekk foofu may bàyyi donc ma bëgg a profiter ci occasion bi pour remercier Viviane. waaw moom laay wax nii rek àdduna tolluwaay la rek ay étape la bu ñu ko jàppee noonu rek ñu soxla il faut ñuy jàng di nekk ci lu baax di def lu baax di def lu rafet foo fekk lu ñaaw nga jël ko rafetal loolu mooy suñu mission ci àdduna bi. donc nga doon sëy moom yàlla may ñu ñaari mag muy Zeyna ak Fafi chaque fois maanaam man parce que xam naa sama doom ak man ak bi ñu am moom mais damay seede fii tey yàlla xam na sama bàmmeel laa taxaw bi ñu yàlla taxawee ba léegi amul benn yoon boo xam ne taxawee na taxawaay boo xam ne man ak sama doom yi dama ci am benn benn jafe-jafe man du ma nit buy rafetal damay toog fii rek tàccu dama koy wax parce que dëgg la yàlla bu sëy naa màggee ba am ah, jëkkër di doog a commencé ci bureau moom moo ko liggéey du man voilà. ça c'est important voilà honnêtement honnêtement honnêtement xaaruma si xaaruma si dara xaaruma ci billet d'avion xaaruma ci appartement xaaruma ci. kër xaaruma ci njàngum xale bu ma defee mu def bu ma deful mu def ant non dama bu deful ma def moom parce moom mooy njëkkee sax def te loolu yàlla dogal mooy dëgg donc loolu ma ko ci du du ma ci wàññi je ne vais dire que que la vérité parce que dëgg la yàlla bi donc ma duñu yàlla je te remercie pour li nga xam ne vraiment mel nga ko ci te du ma du fekk du waxu leneen c'est la xel dal na si yow parce que euh, bëri na fii ay ndaw te la yàlla dogal ñu bëri ñu nekk ci métier yu bëri man xam naa bu doon tarfatal ay di sax am na lu ma def ci damay wax. que ni maa ngi fàttaliku bu Youssou Ndour joué woon cosaan bu ñu demee pâtisserie Medina moom day ñëw fëgg sama fenêtre euh, sama vitre oto ma wàcce ko mu ne ma père lan ngay jënd ma jox ko dugg ci pâtisserie bi jëndal ma ko indil ko tey jii moom laay may sama doom donc donc ah, voilà sama sama petit frère la sama xel daal la te euh, naa ni ñi ñaan ñi yàggul rek yàggul rek kan bi may remercier aussi euh, sama famille c'est important ñëpp à travers Ndeye Saly bi nga xam ne moom mooy suñu taawu kër donc bu ñu nekkee rek ñëpp nekk encore une fois encore une fois ma leen koy ñaax jaamu yàlla du julli ak woor ak dara jaamu yàlla mooy fekk lu loo xam ne rafetul nga rafetal loolu moo am solo. ñaan leen yàlla ñëpp di nekk si jàmm ku waay fekk loo xam ne rafetul ndaw la fexe ba nga rafetal ko parce que boo gërëm nga am ci yàlla. donc vraiment je pense que ça c'est important. Oh. maa ngi gërëm sama xarit. Hmm. parce man aussi vraiment dama doon produire rek mu ji di ma nekk si tali bi. je partage beaucoup d'émotions ak beaucoup de Sénégal yàlla xam na fu ma dem damay gis nit ñi am na fu am naa ci tuuti mérite donc may remercier aussi sama xarit yi toog fii yëpp ñëpp ku lim juum damay jël euh, nuyoo bi rek ki nga xam ne mooy suñu kilifa bi ñu fi ñëwee moom moo ñu jiite muy sama mag mu nekk mu nekkoon sax laay wax xarit Youssou parce que léegi nekkul xarit Youssou sama xarit la yàlla def Youssou présenté ma ko bis bi mu ma ba léegi dafa mel ñoo bokk ndey ak baay mu tudd Amadou Samba maa ngi koy gërëm ko jox du ko du ko jox ñëpp je am na benn nit boo xam ne dama koy seet bi si par rapport ak euh, bi ma koy gërëm kooku ñu ngi tudd Mbacke Diouf je te remercie mon frère et li ngay def pour nit ñi yàlla la ko yàlla fay vraiment encore une fois wax ji ñu ngi bëgg a dugg mais li am solo ba am solo ñun ñi nga xam ne yàlla daf ñu baaxee ba joxe naa àjjuma ci guddi mun naa wax ni bu jàkkaar la commencé ñëppay seetaan yàlla xam ne bis bu ma yeewoo dama naan yàlla ma yàlla xiir may gën a def lu baax parce que àddina amul solo amul benn solo da ngeen jëndee vraiment nit ñi nekk c'est pas kii ñu ngi doon sëy wala kii dafa xuloo wala kii dafa xeex ku ci def loolu boo tëddee boo sangoo boo tëddee damay nelaw dañu bàyyi lu lu négatif dañu cultiver lu positif looy bis boo dund rek. da ngay xam ne am nga mission pour que vraiment nit ñëpp nekk si daal. parce que développement bi suñu dëkk ci loolu lay commencé mooy que nit ñi yërëmtee kii Mbaye Dieye Faye du ma ko parce que su ma ko tuddee rek Youssou bu fi nekkee rek Youssou donc vraiment wax bëri na mais occasion bi peut-être la première fois ma célébrer lu mag lu toll nii donc dama ci bëgg a profiter comme damay dem retraite comme damay dem retraite nañ leen jéem a inspiré nit ñi à ce que ñuy def lu baax maa ngi leen di gërëm di leen sax jërëjëf. bu boobaa doo dem da taxaw monsieur et madame Bey ñëw. Philippe Thiou. Adama ah, nga ne demoo la traité Philippe ana nga. mbooloo mi goro Adama Bey nee na kontaan na ci goro Philippe non vous restez avec nous vous restez là restez là waaye moom ak gën man xam naa li may def voilà merci parce que ci kaw yàlla dafa leen di teg yàlla yàlla dëggal diggante bi Bouba Ndour ak Viviane yàlla leen yàlla bàyyi ci kanam xale Viviane dañu bëggoon nga fekk suñu fii ci plateau bi ci seen voilà Philippe Zeyna baay buy sëy na bu woo naa la nee naa la lii dafa daw yaram aji day soxna